kooku maire yi mënu ko. waaw monsieur le maire li may laaj <clears throat> bëgg naa am sa xalaat ci euh, euh, menace bi ñu def nii dañuy changer statut ville de Dakar ak tamit ndax buñ ko def mu mujjee jaaree changer waare est-ce que Dakar soxla na 19 commune wàññi communes yi ñu yi. Ah, je pense que loolu teg nañ ko ci suuf. Hmm. Ah, je pense sama yaakaar. Hmm. ndax gis nañu loolu amul benn pertinence. ci àdduna bi. li xew Sénégal mënul nekk kii des ginnaaw au contraire Sénégal dafa war a dem foofu leneen laaj bi nga laaj muy 19 commune yi. Mhm. wax nga dëgg ma démb rek am na ku ma ci doon waxtaanee defe naa ni Ndakaar 19 communes bari na surtout que dañuy wax commune viable il faut ñu xool communes yi nga xam ne mën nañu ànd ñu boole leen mu nekk commune viable. parce que boo jëlee benn lopin terrain bu ndaw lii nga ni ko commune population bi tuuti activité commerciale ya fa nekk tuuti budget bu mu war a am amu ko du liggéey dara alors bu dee commune bu yaatu forte nga xam ni am na population bu am doole am na main d'œuvre bu am doole am na capacité financière mën na liggéey lu rëy boo xoolee tey commune nu Mermoz Sacré-Cœur wala nga jël commune nu ñoo gën a rëy ci commune xoolal ci Dakar yan commune ñoo ci am kàttan dëgg commune plateau ci la bokk mais plateau ña fa dëkk da nga leen di wàññi. par exemple ñu suñ euh, parcelle bi ma dëkk jàppoo ni mën nañ boole parcelle Patte d'Oie Cambérène. parcelle déjà rëy na parcelle mënoo ko boole ci dara. mënul ànd ak yeneen yi waaw. Euh, xam nga Grand Dakar ak Biscuiterie yi. Mhm. mënoon nga leen boole mu nekk benn commune. Mhm. xalaat rek la wax. dama bañ wax lii ëllëg ñu ne lu tax ma wax. dafa mel ni da ngaa bëgg a xeexaale Jean Baptiste. waaw non Jean Baptiste sama xarit. <laughs> damay wax découpage ba nga xam ni. Mm-hmm. njëriñ c'est si mm-hmm. Sicap yi. mais mënoon nga ñu nekk benn commune. Mm-hmm. sama gis-gis laay wax. mais commune yu ndaw boo demee ci yeneen réew yi commune yi dañuy am espace territorial bu mag foofu c'est des communes viables. commune nii am co cohérence boobu ñuy wax. cohérence territoriale loolu la. mais nit ñi xam nga mooy li ngeen di wax ci politiciens yi bien man man sant yàlla du ma politicien. man je suis un homme parce que seen intérêt bopp rek la ñuy xool bu ñu waree dem même ci découpage boobu ku ci ne da ngay sa intérêt kii mi ngi fi ban kenn du ko laal kii nañ ko laal parce que bokkul ci mais bu fekkee du ñu appliquer cohérence territoriale rek war nañ ko seetal et du ci am na ci gox yoo boo fa demee tey ji maire yi dañuy xeex xeexal dañuy clandestino parce que benn marché bi j'en profite boo le maire mais ñun suñu suñu gox yeeg goxaan ya nekk fële ma dëkke bu njëkk ba la ëppoon solo ndax communauté rurale bu mag la woon euh, jàpp Sébikotane yeen sàngal kam mbaam bi loolu jam ñaajo mm. bi acte 2 bi ñëwee xuuf acte 3 bi gën a rey Sébikotane ak jam ñaajo chaque jour nga dégg coowal fii la jam ñaajo yam fii la Sébikotane yam hôpital hôpital boobu ñuy woowee hôpital jam ñaajo ba fii may waxeek yow nii njaw mu ngi fay des xambin waa Sébikotane ak jëm ñaajo chaque jour ñu koy xëccoo recette yi ba finalement dañ leen koy séddale du jariñ kenn. mais problème bi donc pour man war nañu xalaataat décentralisation xam nga Khalifa Sall dafa wax ju am solo nit ñi bëgg ko ñàkkal fay bu mu ne ku xamul décentralisation am na ci wax ju am solo la décentralisation du yëfu ciw li da ngay dem ci ay comité ji wax commune intégrale mais am na commune yoo xam boo fa demoon ay communauté rurale la lan moo fa nekk ñetti famille juróomi néegi ñax ñetti xar yu góor ñaar ñu jigéen benn bëy juróom-ñaari ganaar ñaari boutique ak ay mais comme ban commune la nga ne ma c'est des communes d'égale dignité comme ah. ni ko ñaari commune yi ko séqi xëccoo yi fi mu alors que bu njëkk pour cohérence territoriale dañ naan ñëw parce que boo nee tabax benn école wala dispensaire ci commune bi ñee xeex ni duñ fa dem wala école ñee fee nga ko tabax suñu doom yi duñ fa dem dañ daan ñëw ba nga ci limite ñaari communes yi ñu tabax fa poste de santé wala ñu tabax fa école wala ñu tabax fa leen nga xam ne ñee dañ fay jóge ñëw ñii jóge fi ñëw mais tey jii ak commune communisation intégrale dañ naan kii ci ban commune la dépendre. mais ci communica communautarisation boobu est-ce que jàppoon ci côté bitim biti réew bi maanaam ci fi ñu wooyee àll la amul solo mais ci Dakar am na fi solo ndax euh, reste euh, communes yi euh, ku ne am sa doole boppam. jàppoon dina ci am solo. oustaz bi foogoo leen ne daa bëgg nekk mais. xam nga oustaz. Dakar. Dakar. dooleem ak ëllëgëm. mooy ñu renforcer la ville de Dakar. boroom xam-xam yi dañu ni. xaw nu ma koy tekkee ci wàllu sax. les villes ne meurent pas. Alexis de Tocqueville. nga xam xam-xamam dafa màcc ci ci de décentralisation. dafa ni les villes ne meurent pas. elles tombent en désuétude par défaut d'entretien. mu ni dëkk du naat saay dafay laaj defaraat tabaxaat Paris melul ni boroom xam-xam moo ñuy ni foog xam nga beneen boroom xam-xam ku jógee fee ko les villes ne sont pas des musées dëkk yi du ñu ay musée am na loo xam dañ ko war a toj jàppoon jàppoon mairie Dakar fi mu nii ñu hmm? ak ville yi est-ce que tamit waruñ def taxaw seetlu xoolaat euh, parce que man pendant longtemps je me suis posé une question mairie Dakar lan mooy compétence am su ma nee lan mooy hmm. compétence am su ma koy méngale d'abord euh, si territoire mairie Dakar wala ville de Dakar parce que bu nekkee si 19 communes yi ko seet fenn foo laal rek am na fenn foo xam ne fa la bokk si 19 communes yi donc ville de su ma ko bëggee làmb daj ko fan laay làmb ko benn ñaar ñaar euh, si wàllum compétence parce que bu ñuy wax décentralisation si indi compétence euh, si wàllum compétence yi tamit ne ville amoon na yu am solo yu doon def di si taxaw euh, diggante moom ak yeneen bokk moomeel mais fan la ay compétence ville de Dakar yem fan la compétence bokk moomeel yi nga xam ñoo nekk biir ville de Dakar tàmbale loolu yëpp tamit day daaneel foofu dem xooli Ramadan ak Absa nag très rapidement monsieur le maire boo laalee commune Dieuppeul-Derklé laal gi ville de Dakar boo lamee commune Grand Yoff foofu foofu la. c'est la somme de communes moom mooy ville de Dakar c'est dafa épouser contour département compétence am yaatu na mbas mii rek ville de Dakar joxe na ci lu ëpp trois cent millions ci hôpitaux yi nga xam ne ñu ngi nekk ci département Dakar booleeg yeneen yi nga xam ne na ko ci wàllu jàppale dimbalante ci askanu Dakar programme yi ñuy def set setal Dakar ville propre mais ay milliards lañ ci def. programme bourse pour may xale yi ñu jàng mais ay milliards yi milliards la ci ville de Dakar def fànn boo laal ville de Dakar def na ci ay jéego yu mag boo demee ci sport bërki dem maa ngi koy wax seen président bi ASC ville de Dakar daawoo ko dégg tey ASC ville de Dakar dem na ba nekk champion du Sénégal ci basket góor comme jigéen ñu nekk ay équipe yu am taxawaay jaraaf bi nga xam ne ci ndakaaru la nekk ñu ne koy jaraaf di Dakar bu mu waree dem bitim réew. ville de Dakar dafa jàpp ni ñii dafa leen war gunge jàppale leen keroog bi maire bi soo am war di dem bokk naa ci délégation bi dem ñu joxe seen dimbal sànq rek maa ngi waxtaan ak moom mu ni ma Cheikh ma ne ko labbayka mun ma ajuma bu ñu sëlmalee ba noppi dama bëgg nga ànd ak man ci délégation ñu dem Masalikal Jinaan joxe suñu ndimbal ci koor gi donc ville de Dakar li muy def ci jàppale ci ndimbal dafa yaatu te ville de Dakar fépp la. kon daal ndimbal dong la daal. non compétence bari na ay travaux yu ñu nga xam ne mu ngi koy def hôpitaux yi nga xam ne ville de Dakar moo ko defar appareil yoo nga xam ni yu mucc ayib xarala yu seer ville de Dakar jënd ko équipé leen centre yi nga xam ne ci commune yi lañ départ mais ville de Dakar même daf leen di appuyer lycée yi ak collège ville de Dakar mi ngi koy defaraat tali yi programme bu large la boo xam ne ville de Dakar nekk ci programme de réhabilitation de la voirie classe donc ville de Dakar li muy def li muy maye ci bourse ëpp na milliard xale yu bari tey jii dañuy jàngi ba am ay lijaas delluwaat ci réew mi di liggéey ville de Dakar a tax ñu jàng merci beaucoup monsieur le maire Khadim laa bëgg a jël laajam rek parce que dafa feggoog li li ñuy laaj fii euh, moom mooy euh, ci ville de Dakar nag ñu ngi waaj a demaat ci élection locale yi euh, nee na ndax yéen ñi nga xamante ne ni yéen a nekk élu yi bu ngi demaatee ci élection soo am war ni ngeen di samb wala Khalifa Sall xam nga man bu fekkee Khalifa Sall mën naa bokk. d'abord scientifique la doublé d'un musulman li xew suba man du ma ci wax li am suba yàlla rek xam. <laughs> c'est que monsieur le maire analyse concrète situation concrète. monsieur le maire pour ne pas dire politiciens yi mais yéen les hommes politiques. su leen ah, dangeen ngeen taxaw wax ñu ay projet wax ñu ndàngam élection ndàngam bëgg naa nekk. candidat nàngam bu ñu leen laajee ci benn mbir bu ngeen bëgg tontu naan yàlla laay xaar. déedéet xaaruma yàlla. ci far astafurlah sax yàlla laa xaar mais li ma bëgg wax mooy. yàlla boo xam ne nañu ta ba àgg ci tollu ci xam lan la ñuy taxaw. oui prévision. planification loolu moom mooy cëslaayu bépp politique. cëslaayu loolu sax farata la war a doon ci politique. non d'accord naa ak yéen c'est-à-dire dajeeguñu daje boo xam ne ñun dañuy wax élection yi nii lañ ciy demee buñ ciy dem kii lañ ciy àndal kiñ ciy àndal kii la ñu bëgg samp. àggaguñu foofu bu jàggi boo ma ci laajee ma tontu. maa doon premier adjoint. damay laaj xaalis bi ndimbali maire yi di maire di joxe ci euh, football beeg yooyu noonu fan la koy jëlee ci kees bi tëjoon Khalifa Sall wala. amul xeex kees bu tëjoon Khalifa Sall. non bi ñu ko tuumaaloon dama bëgg dama bëgg wax jooju dama bëgg wax jooju. Sénégal yi ñi ci ëpp. seen religion ñu def ko ci mu leer nañ seen bopp. Mhm. Khalifa Sall duñ ko tuumaal. jiiñ ko loo xam ne amul. waaw ci kees bi ñu ko tuumaaloon kon. kees bi ñu ko tuumaaloon. du coobare boppam. xaalis boobu ñuy wax. conseil municipal bi nga xam ne cent conseil ñoo fa nekk ñoo koy voté. bu ñu ko voté ba noppi mu dem ci préfet de Dakar. mu approuvé ko. mu jóge fa dem ci percepteur u Dakar. ñu génn xaalis. ñu ngi utiliser kes ba léegi. kes boobu. Ah. kees boobu lu mu daan jublu mooy bari na ay ñoo xam ne dañu feebar kenn mënu leen faj fii wala ñu war leen yóbbu. waaw ñu koy utiliser ba léegi laa sama xam-xam de arrêté woon nañ ko. Ah. sama gis-gis. merci beaucoup arrêté woon nañ ko merci beaucoup monsieur le ñu dem xool. mais teewul ndimbal lañ euh, doon def ñu ngi ñu ngi jéem di ko.